incha allah. <laughs> donc 8h45 jot al jërëjëf donc euh, comme ni ñu koy defee saa su ne ci waxtu wi tey di tey la mardi. waaw mhm. ah, di 14 mai 2019 mel ni weer bi xaaj na nag waaye mi ngi waaj a xóot donc dañ koy doore rek euh, ci bélier yi donc bélier yi xam nga ci wàllu wi sentimental ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne euh, seen taxawaayu mbëggeel dafa nekk li nga xam ne war nañ cee bàyyi xel bu fekkee dafay may aventure yoo xam ne day ñëw ci ñoom. parce que loolu dafa nekk loo xam ne ñoom seen jëm bopp dafa am lu leen yàlla may tey xam nga bélier yi nag wax dëgg yàlla dañoo nekk ay gentlemen ñu jigéen ñi nekk ay ay njagamaar yu mucc ayib mhm. donc ñoom waaw dañu nekk ñoo xam ne euh, loolu leen yàlla may noonu du ko exploité ci seen wàllu vie sentimentale dañuy gis ki nga xam ne moom mooy am sœur mhm. donc day jàppandi donc ci wàllu sante nag ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne euh, baax na nag ñu def effort xam nga Euh, lii laaj di doon wax léegi euh, jinjeer da da nga koy naan ndax sa yaram di war di dox. Mhm. léegi nag ñoom comme naanuñu ko daa am ay toxines yu nekk ci seen biir yaram donc loolu moo waral nag il faut ñu def sport pour vraiment loolu noonu mun a mun a mun a mun a mun a deñ. Mhm. loolu dafay nekk loo lu baax lay doon. Euh, ci wàllu travail ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne il faudra ñu jéem a équilibrer seen vie professionnelle. ak familial donc ñaar yooyu noonu euh, il faut ñu jéem a xool nan lañ koy euh, nan lañ koy équilibrer bu fekkee ne defuñu ko rek euh, seen collaborateur ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom dañ leen di xaw a di leen ay yenn wax yu ñu leen di wax ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoroo yi ah, donc tóoroo yi ñoom dañu nekk ñi nga xam ne côté cœur donc tóoroo yi ñoo juddu entre 21 avril jàpp 20 mai mu ne ñoom dañuy xool ne il faut ñu def am li ñuy wax maanaam tendresse am cas am cas xam nga li ma la waaw ah. ah, ah? waaw am am am kii waaw kii yu mucc ayib yooyu noonu. du téye sa loxo. waaw ñu ngi nii rek ñun tóoroo yi. waaw waaw tóoroo yi yooyu am ay yëf. am ay yëf voilà am ay yëf laa am ay voilà nee na am ay yëf donc loolu dafa nekk loo xam ne tey bu fekkee ne def nañ ko waa ji ñuy bëgganteel ki leen nopp. dégg nga il va perdre la tête. il va être fou. perdre raison bi day nag day xelmee nagam dootul xalaat dara lu ndaw lu laari wax mu ne waaw lu mayte wax mu ne gongo. dëgg la way genre yooyu nag. bu toutes les vérités waaw léegi loolu dafa nekk loo xam ne lu baax lay doon léegi nag ci biir loolu nee na lucidité boobu noonu nga xam ne yow aal war nga ko am ndaw si cas-casam yi mu am dalay yóbbu sa xel mi ba lu mu wax nga ne waaw donc loolu la yàlla dogal ci wàllu santé euh, mu ne dafay nekk li nga xam ne yéen seen jëm bopp bu leen jël seen bopp rek foog ne euh, lépp mun ngeen ko encaisser no mënul nekk c'est pas possible. da ngay feebar. munoo defandoo lépp. loolu yàlla rek moo ko mën fu ne nga ne fa. dégg naa dëgg yàlla rek moo ko mën donc nga bàyyi ce ci wàllu professionnel mu ne da ngeen nekk nii ne euh, xool leen situation yi nga xam ne dafa taxaw pour ngeen mën si profité si loo xam ne dafa leen di jëriñ pour ëllëg. Mhm. donc àdduna noonu lay doxee. Euh, ñu dem ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy jumeaux yi mu ne ñoom ñoo juddu diggante 21 mai jàpp 21 juin ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne bu ñu xoolee tey. xam nga nit jigéen routine baaxul routine baaxul cest à chaque jour rek ngay sol booy tëdd rek sol benn yére bi rek wala benn couleur yu yére bi wala benn xeetu yére bi loolu baaxul. Hmm. nit da ngay changer am imagination. <laughs> waaw si moo man waxuma ko de. ak créativité am créativité kii jomo yi tey nee na am leen créativité ah waaye chaque jour rek TV. malikaan bi rek wala kii bi loolu baaxul. wala dëssu bi wala dëssu bi. changé leen ko ngeen indi yeneen xeetu xeetu xalaat yu bees. ah ci li nga xam ne mooy imagination mbabal yeeg yëpp mbabal yeeg yooyu noonu yëpp arrêté leen ko seen simbang yeeg bële fete yi mu ne dafay nekk loo xam ne routine lool baaxul routine la il faut ngeen commencé lu bees pour waa ji ngeen mun koo yëbbuwaat ci yeneen level yeneen niveau donc lool dafay nekk loo xam ne lu baax la léegi bu fekkee ne célibataire ngeen nag yéen seen jëm bopp loolu moom mënu ko xanaa ngeen xaar rek am. ay borom donc def leen nang euh, ñi nga ci wàllu santé mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla euh, yenn lekk yu bëri yi dafay indi ay problème ci wàllu biir bi donc yooyu nag dafay nekk loo xam daf leen sonal ci wàllu travail mu ne lépp li nga ne yaa koy def mu leen dafay gêner seen partenaire euh, wala seen collaborateurs yi jarul ngeen koy def parce que dafa leen di yàqal ñu dem ci cancer yi ah cancer yi ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne bu ñu xoolee dafa wax ne ñenn ci célibataires yi kenn mënul leen lijjanti. léegi nag ci biir loolu ah au lieu nga wut lu baax mais yow daal yow na fi ñëw rek tuut a teew ngay wut donc loolu euh, qualité la ak quantité donc kooku nañ si bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu santé mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne def leen tuuti activité professionnelle parce que dafa leen ni mun a jàppale ba yenn jafe-jafe yi nga xam ne mënoon ngeen ko am ci seen santé dina bàyyi ci wàllu travail aussi da ngeen di gis ne dina am ay changement yu yu yu changement yu radicaux yoo xam ne vraiment dafay am yuy taxaw nag ci seen kanam léegi nag ci biir loolu taxaw leen si ngeen dem si parce que da am li ngeen dañuy dem euh, ci lion yi lion yi ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne euh, ci wàllu wi sentimental dañoo soxla ndimbalu ki ñuy bëgganteel ci muy waxtaan ak ñoom mu leen di jàppale euh, di leen dolli xel di leen dolli xalaat loolu dafa nekk li nga xam ne vraiment baax na lu am solo lay doon ci wàllu santé mu ne seen poumon yi ah, dafay fragile donc ndeyaa ci biir loolu fara yéen seen jë bopp ngeen bàyyi si xel bu baax a baax ba am ci taxawaay xool ci doxalin bi nga xam ne da ngeen koy am pour loolu mën a nekk li nga xam ne da si siy gën euh, ci wàllu travail également mu ne dafay nekk journée bi nga xam ne journée professionnelle lay doon loolu bàyyi leen si xel ngeen xool si am si taxawaay tamit ñu dem ci vierge yi vierge yi. Euh, ñoom mag waaw ñoom ñoo judd diggante 24 août jàpp 23. Koulibaly di septembre ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne tey dafay nekk journée boo xam ne journée ordinaire a de lay doon donc bu fekkee ne yéen kese ngeen. mu ne na ngeen profité ngeen def benn introspection. Mm-hmm. waaw loolu dafay nekk loo xam ne lu am am solo lay doon koy tekki ci kàllaamay coach. ci kàllaamay pour ñi nga xamante ne ñi ngi lay déglu te xamuñu lan mooy introspection. mooy xoolaat sa bopp rek. waaw da koy wax xoolaat sa bopp. bu baax voilà sa bopp euh, kii da nga foog ne dégguma tu dégguma olof. Ah. xoolaat sa bopp introspection xoolaat sa bopp autocritique. di mhm. caytuwaat càmbaraat sa bopp càmbaraat sa bopp waaw. voilà remise en question. xoolaat yaay kan. waaw doy na nag. waaw damay doxalal doxalal. ok ci wàllu santé bi mu ne ñoom dañu nekkee nit ñi nga xam ne il faudra ñu favoriser échange donc loolu dafay booster seen moral xam nga nga nekk yow kese dem ba tëju laa wéet. di xalaat sa xalaatu bopp rek te woo ko ak nit ñi. Mhm. bu yàggee daf lay indi lay stress ak ay mal de tête ak yu demee noonu. donc loolu nga bàyyi def communication. bàyyi def communication voilà mhm. communication tekkil ñu ko ci olof. sottante xalaat di waxtaan. travail mu ne dafay nekk loo xam ne occasion la tey vraiment pour seen performance sur le plan professionnel ngeen mun ko doxal bu baax a baax donc loolu dafay baax ñu dem ci signe yu mujj yi ñu dooree ko par balance mu ne balance yéen da ngeen nekk nit ñi nga xam ne xam nga. àdduna dañ ne yàpp xaj bu seddee soof. Mhm. ndéem dañ koy lekk. ndéem mooy lan. ndéem. ndéem. Ah, dañ koy lekk. mais lan mooy ndéem. waaye dinaa la wax bu ci fin bi moom laay tëjee mu ne yàpp xaj bu seddee soof. donc loolu dafa nekk li nga xam ne yéen seen boobu nee na seen créativité da ngeen ko xool vraiment pour mun a def tuuti. saf-safal ci seen vie sentimentale ci seen relation pour affaire yi gën a mën a mucc ayib donc loolu dafay nekk loo xam ne lu baax lay doon ci wàllu sante nag yéen seen yoon na ngeen def attention ci seen wàllu lekk parce que intoxication mun na ci am te dafay indee jafe-jafe. Mhm. am na façon lekk yoo xam ne da koy jël des fois mun na fermenté wu yaa ngi wax sànq affaire yu ay dem ba benn moment au lieu mu fajal daf lay indi yeneen jafe-jafe. Mhm. Mhm. donc aussi tey dañ def attention ci xeetu lekk yooyu wala xeetu naan yooyu. ci wàllu travail mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne al il faut ngay ni xalaat di affaire yu bees loolu dafay nekk li nga xam ne dafa leen di jàppale ñu dem ci jiit yi mooy scorpion yi ah Cheikh Faye scorpion yi ñoom Euh, dañu nekk ñi nga xam ne fi mu nekk nii ñoom ñoo juddu 21 octobre jàpp 22 novembre ñoom nag dañ leen wax ne nañ tegaat affaire yëpp ci yoon maanaam daal bordel bi nga xam ne dafa amoon ci seen vie sentimentale euh, jaxasoo beeg xam nga pëccëxoo beeg yooyu nañ ko jëlaat ñu tegaat ko ci yoon nee na bu fekkee ne def nañ ko xam nga jamono yee ci gannaaw gisoon ngeen ne yéen scorpion yi da ngeen bëri woon ay jafe-jafe ci wàllu vie sentimentale ay gàllankoor ay gàllankoor fi nekk nii na ngeen xoolaat na ngeen koy doxalee ranger waat ko ba la leen daloon bañ leen dalal. garant bi jub garant bi jub sàppe yu taxaw. léegi mun a ci biir loolu ci wàllu santé ñoom dañu nekk ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla de dañuy am forme d'habitude scorpion yi ñoom ñu ñu ñu ñu kii lañ mais nañ éviter ji naan lu bari ak lekk lu bëri foqale baaxul loolu da lay feebar. mu ne ci wàllu professionnel ñoom dañoo doon ñoo xam ne il faut faudra ñu jéem a jouer seen atu yi nga xam ne yàlla may na leen ko wax dëgg neex yàlla pour ñu mun a am li nga xam ne dañ ko bëgg ñu dem Cheikh ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaire yi ñoom ñoo judd 23 novembre jàpp 20 décembre bu ñu xoolee tuuti ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne euh, seen partenaire dafa leen soxla fi mu nekk nii pour ñu mun ko dimbale da lay ñuy ba lépp li nga xam ne ñu ngi koy bëgg wala mu nekk loo xam ne dañ koy dox rek dina mun a sotti mais il faut mënuñu dem ñoo ko dañuy wax ne laar yi nit ñi tey. garabam voilà maanaam kii ku fi tàkk. dañ laa buux. voilà léegi ñoom kon sagittaire yu góor yi dañoo soxla sagittaire yu jigéen ñi pour ñu buux leen comme ñu góor ñu jigéen ñi dañoo soxla ñu góor ñi pour ñu buux leen. kon boog nañ buuxante. nañ buuxante. waaw léegi loolu dafa nekk loo xam ne lu ci baax lay doon léegi nag ci biir loolu ci wàllu euh, santé tracas problème nit da koy faral di am mais boo ko jëlee yenn ko da ngay feebar loolu mënul nekk il ñu bàyyi si xel baax ci wàllu travail ñoom dañuy nekk nii nga xam ne euh, vraiment optimisme gëm-gëm bi nga xam ne am nañ ko sur le plan professionnel daf leen di dimbale ba ñu am li nga xam ne dañ ko bëgg donc loolu moom moo nekkoon euh, sagittaire yi ñu dem ci capricorne yi capricorne yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne euh, ñoo judd 21 décembre jàpp 20 janvier mun a ñoom dafay am li ñuy wax maanaam changement de tempérament loolu dafay nekk loo xam ne lu baax lay doon waaye nag ñoom comme climat dañuy sedd ba mu neex leen ñu tàng. maanaam dollar lañ dañuy yëg di wàcc yëg di léegi nag seen yëg ak wàcc boobu livre sterling laa gëm. waaw léegi nag seen yëg seen yëg ak wàcc boobu ko jëmalee ci seen wàllu mbëggeel. Mhm. muy nag ci côté ku góor wala ci côté ku jigéen ki day métti ci ñoom duñ ko fekkee. kon dèjà loolu nañ ci bàyyi xel bu baax baax léegi nag ci biir loolu nee na seen wàllu santé euh, bi niveau stress bi dafa commencé nag di yéeg te loolu baaxul sur le plan professionnel ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla euh, am nañ ay aptitude pour mun a créer ay affaires donc baax na pour ñu mun si dugg dem ci ñu dem ci avant signe bi mujj bi Cheikh muy verseau yi ñoom ñoo judd 21 janvier jàpp 19 février mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne actuellement <laughs> euh, may de hmm. nee na ñoom ci mbiru xeetu sens yow xam nga sens yow xeet yu affaire yu neex yooyu noonu diggante ay yaram yu tàng kërëb kërëb yooyu noonu sensation sensation yi mu yooyu dafay nekk loo xam ne tey jii nii nañ ci profito parce que tey journée bu mucc ayib la tey pour loolu mun a nekk na surtout bu fekkee ne nag ay couple la ñu marié moom wax dëgg yàlla day gën a dëgëral affaire yi day solidifier relation bi dëgër këj te loolu sax c'est normal voilà mu ne sur le plan Euh, euh, ay mbir yoo xam ne dañ si war a taxaw di ci xool tamit ah, baax na su fekkee sa jabar dafa bëgg ay affaire wala si jëkkër dafa bëgg ay affaire ay aar wala yu demee noonu euh, baax na nga jox ko ci ay cadeau loolu daf koy gën a baaxal ci wàllu santé mu ne nag solal say dàll wala sa gi laaj del daw di entraînement laaj dooy entraînement del entraînement entraînement dafa baax xam nga feebar yi ngay feebar fan yi yëpp ñaara ko waral yaa ma gis ma feebar ñaara ko waral benn bi doo da ngay entraînement ba ñàkk entraînement ak ñàkk borom kër yooyu dafay indi ay tabat yooyu yooyu donc il faut nga. tey na la nag tey waaw il faut nga si nga nga. man nag tey laa lay wax li Lamine Samba wax euh, ci wàllu travail euh, ci wàllu <laughs> travail mu ne loolu dafay nekk li nga xam ne euh, yéen ci seen jëm bopp war ngeen déglu seen interlocuteur pour ngeen mun a am li nga xam ne da ngeen ko bëgg ñu jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñooy. poisson poisson yi cher ñoom ñoo judd 20 février jàpp 20 mars mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne bu fekkee ne comme dangeen ngeen nekk célibataire amul leen borom kër baax na tey ngeen dina am rencontre bu am solo boo xam ne di ngeen ko am léegi nag ci biir loolu yow ci sa nga bopp bu nu leen teel a xoo xalaat mariage xam nga boo lambee lamb gu yàgg soo gisee nit ku ñëw rek da ngay foog ne da takk léegi léegi léegi déedéet nee na def leen nànk rek jarul yàkkamti ah, il faut pas mettre les charrues avant les bœufs mm-hmm. donc da yaa ngeen bàyyi si baax mu ne ci wàllu santé ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne bu ñu sous-estimé Euh, li àll di wax ne une heure de temps mën nga ci nelaw mu réparer sa sommeil donc loolu aussi nañ ci bàyyi xel baax a baax sur le plan professionnel également euh, ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla nit ki benn moment il faut nga exigeant par rapport ak yow sa jëm bopp pour mun la jàppale ba nga mun a am li nga xam ne dañ si bëgg donc àll loolu moo nekkoon horoscope bu tey bi ah donc euh, di am yaakaar ni gaa yi dégg nañ ci baax ci fukki signe ak ñaar yi di leen jox dig daje incha allah rabi suba.